Di yi bokk taalibe ñu ngi delu di nuyoo bu baax di ci jital sant yalla julli ci yonte yalla muhammad alayhi Salatu Wassalam di jaajeufal serigne modika sek borom yalla neena ma sha allahu ñi ngi ni tok ci salam toog ak xalifaam toog ak mujahidin fi sabilillah nga xamni ne serigne modika moko form mo ci ñaan tan ay nit bopam macha allah waaye ndok ñi mu tàdd ñëpp bëgg ko comme ni ko sëriñ bi bëgg moo taxoon tey ñu daje fii julli fi juma ñenn nag ci kilifa yi ñëw jokkale teeg sëriñ bi ay kat indi seen siyaara macha allah sëriñ bi ñaanal leen yàlla dend ak rakam yëpp ak muxaddam yi. fii nag mooy daara yi ba kayo di daara ji nga xam ni daara ju yàgg la waaye ba mu tàkkee ba tey fay yàlla bu mu fay mukk ci barke yonent bi alayhi salaam bokk julli di bokk taalibe yi dellu nag di leen fàttali bis boo xam ne nag du bisu kenn ku dul sëriñ Madické Seck borom yàlla nee na bis boobu sëriñ Màgg Jóob di doomi alaaji njëga Jóob mi nga xam ni mooy président ni ja baaw dëkk yaraax xam nga yaraax maasa allah yàgg naan fa tàntal ahlu canaba yàgg fa tàntal bàyyi alfa mamadou maasa allah waaye yàgg naan fa tàntal nag ah sëriñ ma di ko sec borom yàlla nee suñu sëriñ moo tax la cinq mars bii ñu jëmmal màgge bis ba mu daan def suraano da koo toxal indi ko yaraax ngir lan ngir rek taalib yëpp mën nañu ci bis ba bis ba nag ah, kenn moomu ko kuddul sëriñ ma di ka sekk boroom yàlla nee na mu fonk sëriñ bi lool bëgg sëriñ ma di ko lool ba tax mu jël ki nga xamante ni bokk te ñi ñi gën a suufe ci taalibay sëriñ ma di ka sax dara jaale ko bis bi kooku ku mooy kan mooy xalifa njaay xam nga xalifa njaay lépp lu ko waay defal lépp lu ko waay wax sëriñ ma di ka tax lépp lu ko waaye defal sëriñ ma di ka tax moo tax nag mu boole ko ca pare yi xalifa Njaay jëlaat bis bi nag jébbal ko Serigne Mouhamadou Mourtala xalifa Serigne Madické Seck moo tax yàlla nee ak njabootu Serigne Madické gépp ak muqaddami Serigne Madické yëpp ak taalibay Serigne Madické yëpp di ci woon ñëpp di sàkku nag ah, bis boobu nag ah bis la boo xam ni bu ñu sañoon képp kuy soppeeku ma Madické Seck góor jigéen mag ak ndaw nga fekk boobu bis ngir bisu faju aajo la ndax. ken momul bis bi ku dul sëriñ Madické sax borom yàlla neena na bokki jullit yi bokki taalibe xam ngeen Khalifa Ndiaye buñ ko téye bis ah bis boobu ken moomul ku dul sëriñ Madické Khalifa Ndiaye lu ko waay defal ken taxul nga defal ko ku dul sëriñ Madické Khalifa Ndiaye lu ko waay wax it kenn taxul nga wax ko ku dul sëriñ Madické motax serigne sëriñ ni Khalifa Ndiaye yow laay pare bis bi ngir lan ngir xamé gi la xamé départ ko ma Madické macha allah lool la waa Louga def ci gàmmu ma Madické gi jël teranga bu rëy ci digg mbooloo mi ñëpp toog ñu ne lii Khalifa Ndiaye lañ koy décoré ñu ne lu tax ñu ne ah xanaa yàgg ci départ ko Serigne Madické rek ma ne leen waaw ah laj ko lañ soo ko bëggee xeeñ te amoo njëgam da ngay jege ki ko xeeñ boo jege koo ko xeeñ rek daa ji xeeñ laj ko lañ bokk jullit yi bokk taalibe yi boobu bis daal Khalifa Ndiaye ngi sàkk képp ku nga xamante ne rek bëgg nga yàlla bëgg yonte yàlla Muhammad sopp sëriñ Madické Seck borom yàlla nee na xalifa yaa ngi sàkku nga ñëw wéttali ko ci boobu bis te yàlla rek tax te yàlla rek tax yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak ci barke yonent bi alayhi salaam mars ca yaraax dimanche le 5 mars màgget nag xam ngeen ni bis bi ah bu xëyee dina jàng ay kaamil alquran maasa allah yéen a ko jullit yëpp rawatina nag ñi nga xamante ni ah, di leen a gënoon a ràññee ci këppaarug sëriñ Madické ba tax sax nee na. ki nga xamante ne yilifoon na daayira nu jabaaw ak yeneen i jëmm yu baax macha allah yi dal ñu ngi leen di wala 5 mars ca Yara. bàyyi di kenn du ma ko misamaan fii a fii ci kër. ndox mi ñëw na moo ko fi def fii ci kër. courant bi ñëw na bàyyi di kenn fii ci kër. bi nanu siyaari mama amar yi jug leen siyaar nanu siyaari mama amar yi jug leen siyaar woo laay laay bay ma dikkee borom yàlla nee na laay lalla bu leen fàtte abonné seen seen YouTube. Samsu TV jant bi leeral àdduna. te activé cloche de notification boobee ngeen di seen si seen écran.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 waa Samsu TV la ñuy bëggee ba aljana